Assalamualaikum mbokku téléspectateur yi nga xamanteni ci yene top sen site internet bi di mourid.info point info comme ni len ko waxee won nak ginnaaw bu portrait bi jàllee nak yene gi ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou ni len koy defalee sa su nek tay nak ñi ngi doxantu ba fi nga xamanteni ci si daru Minam fekk ci fi ki nga xamanteni ci moy kilifa gu mag Serigne Khadim Mbacke bala ñuy xuuse ci waxtaan bi rek dañ koy bayyi mu ak mbokku téléspectateur mourid.info yu koy seetaan ginnaaw bi la joxee sa way serigne bi. assalamualaikum warahmatullahi taala Wabarakatuh ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci yent bi sallallahu alayhi wa di sant suñu wasila moy si ahmadou bamba khadim rasul di len jox seen way bu baax baax di rafetlu timit ñew bi ak émission bi bu baax euh, di len wax ne dara len jam ak salam jërëjëf sëñ bi Mbacke Balla ci présentation bi amna solo torop ah, ñu fekk si la fi nga xamante ni si mo di ma Minam fi nga xamante si nekk sa diwan nga ay xale yu mag Ramadan bu marak la ñu wax nak ndax mën naa xam sëñ bi naka ngay wooree fi ci koor gi. waaw koor gi ñu ngi koy dugg ci di ñaan ñu si ci rabbal alamin koor gi mom, war alam ram ah, weeru tedd la woo xam ne Ramadan di di di ko fas yéene woor ni ko yàlla digle ak ni mu ko santaanee ñu koy jéem a def te mboolem ñu topp suñu ginnaaw tamit noonu nañ bëgg ñu koy defee yéen seeg jàmm weer wi daal weeru mubaarak la weeru barkeel la bu suñ borom gërëm la fii ngay toog jiite taalibe yi ah, ngeen ànd wala jumaa ji la gën ci ngay dem nga waaw jumaa ji ma gën a jege laay dem julli fa ndax euh, bu jàkk a nekkee sa wet wala benn jumaa nekk sa wet aram na ngay julli sa biir kër nu fekki ne juma ji xëccut nem mu xëccee sax jar nako ndax jéego bo ci jéego suñu borom dana la ko fay surtout ak bam jégé euh ñi nga xamni ñom ñom ñoom la nekk di tagal ñom timit kenn ku ne ku nekk sa kër timit wax na leen na leen bu juma jégé bu mënta ñak ngeen dem julle fa duma tok ak yaw nak te duguma ci li nga xamanteni ci si ci nga yëngu ah, señ bi man naa xam ba xam suma ma bëggee xam señ xadi Mbàkke deug naka lay def ba xam ko waaw señ xadi de moy jëm ji solo di tar bi Sëriñ euh bok ci njabor señ Tuubaa ba nopi don talibem diko liggeyal ab yëngatoom ak mbiram yépp mi ngi jëm ci liggeyal ko tedd ki Xaadimu rasul ba taxna ngeen fi gis Euh, ci liggéeyal sëñ bi nañ leen di teetee ci liggéeyal sëñ bi tamit nañ leen di mébét ba liñ bëgg lépp ci liggéey sëñ bi ñu àggale ko waaw lool mooy kii mooy sëñ Xaadim Mbàkke euh, di tudd sëñ Xaadim Mbàkke borom baax ñu gën maa xam ci borom baax di doomi sëriñ Mamoun Mbàkke moom sëñ Abdou Mbàkke du yooli waaw. dëkk ah, leeral tamit am na solo ndax mën na maa mën nga maa wax tuuti ci nga xamante si mooy say waajur Wow, <clears throat> sering abdi jom pakai di yori mooy sama mam. Eh, sering mam Mamour Mbacke moy sama bay. Sering abdi jom pakai di yori mok sona Fajja ñoo bokk benn wajur taaw sering tuba. waaw ya, ñoo bokk benn waajur sering tuba yaral ko yar ko fom ko waree yar terbiya ko fa ko war terbiya tërbiya ñoom defalee ñëpp comme ni ko defaree Modou ko Fallou eh, daanaka li nekk ci moom moom sëriñ Abdou Dia Mbacke di yori sëriñ Tuubaa moo ko ko def moo ko defal lépp euh, neem soxna faj de magoon na ko ba mënoon koo jur waaye ñoom ñëpp te dafa dafa daan wëlbati ko neem soxna faj de magam la waaye dafa daan wëlbati ko naan ko sama yaay ak sama sang ndax cër bi nga xam ne moom la ko jox kon kooku mooy sëriñ Abdou Dia liggéeyal na sëriñ Tuubaa fu sëriñ Tuubaa nekkoon tamit fekkoon na ko fa. ba taxna serigne touba mom da lan bind lo xalim yi dan serigne touba dan bind ci xasaay ji ak ci téré xam-xam yi moom si Amadou Ba moom sëriñ Abdou jalla ka dan wul lo diko ko sol lo ba taxna mok serigne Modou Moustapha ak serigne Modou Roqaya di len dan bolé ben nek ñu nekk fa serigne Fallou ak Abdou jalla ñoo dan bokku ben lal kenn ku nek dan bind xaju kamil ci ndax fukk kamil ak ñaan dan bind ci semaine sëñ Modou Moustapha ak sëñ Mor Rokhaya la sëñ tubaab boole woon sëriñ Fallou ak sëriñ Abdia la sëñ tubaab boole woon ci benn lal bu ñu xëyee euh, euh, daal di bind ab kaamin bu ñu leen xasee sëriñ Abdia mi ngi nett ne bu ñu leen xasee jox oh, cere baraak ba euh, fab ndox mu tàng sëriñ Touba bu ko mosaan indi ci setale gi xel ci ndox mu tàng ñu daal ñu daal ci ñu daal ciy naan daal koy jàllale bala ñu ko defaat daanaka bis ba day deesuwaat waaw ah, kon terbiye boobu lañ daan aw ba am ci ngërëm tey waaw kon nag fa suñ maam ya tegoon suñu tànk rek nañ bëgg a teg suñu tànk. yan relation nga am ak ñi nga xamante ni si moo di ay sëriñ Modou Kara Mbacké ay sëñ Abdou Karim Mbacké ndax dafa mel ni yéen a bokk lu ngeen di yëngatu ci yoonu murit. waaw ñooñu daanaka samay mag lañ ci ci ci yoon wi parce que ñoo ma jiitu. Mm-hmm. doomam nga am na ñoo xam ne. bi mu fu mu ne dañ naa ma rak xanaa rak sëñ Modou Kara nga parce que daanaka lii ëpp solo ci ay istilam ci lay jëree te dañ ne la ku la ku la jiitu ci àdduna daanaka moo la mën a teete kon ci moom laa gën a euh, jël référence ci moom Baye Karim nag daanaka sama baay la euh, sama xarit la tamit tiwut dama fay dem waaye ñëpp rek tool bi yaatu na te ñëpp ci liggéeyal ku tedd ki rek moo leen yëkkati woon waaw moo leen tax a jóg waaw parce que sëñ Modou Kara bi mu fu mujjee dem mooy kaar daanaka kóoru daaw euh, bi ma xoolee daf ma doon xool parce que su ma dee wax ak moom dafay mel ni day xalaat islam moom waaw islam mi ni ma doon wax lépp mi ngi ma doon xool euh, daanaka bal am ma sax lu ma laaj loo xam ne suñu wàllum biir la ñun ñaar waaw du tax ma ma wax ko fi suñu ñaar la ba tax na daal yoonu señ bi dal liggéeyal señ ku tedd ki rek mo fi nek waaw ku la jitu nak ci aduna teete la mhm. mais jël nga initiative dal top ci ki nga xamanteni moy tanki señ Modou karam bakki waaw jëna ci xam nga daanaka señ Modou Kara li ko gëna a ak li ko gëna soppé moy bëgg gi mu bëgg señ Touba di fesselé fep te amuñu lu dul Serigne Touba ñun te kuñ gis rek nga bëgg Serigne Touba rek dañ lay bëgg def la suñu lépp waaw nga nekk suñu royukaay ba keroog ñuy mujjee gis Serigne Touba ga nga bëgg waaw fu ñu ci paree rek boo ci paree rek ñun paree nañ ci boo ko toppee rek ñu topp nañ ko mbokk ñu leen leral tamit am na solo trop mbokk ñu leen di fàttali gi ne yéen ngi seen biir émission koor gi ak nday Thiam Saliou tey nag ñu ngi dalal suñu invité Serigne Khadim Mbacke borom baax Serigne Khadim balaa ñuy xuuse ci waxtaan bi tamit euh, ndax mën nañ xam ba xam ban initiative nga jël pour former xale yi ak euh, ban yar nga bëgg a def ci xale yi nga xamante si ñoom ñoo la topp waaw xale yi daanaka li ma bëgg a jël ci ñoom mooy yaru euh, am si ñoo nekk ci ñoom terbiya te boo leen gisee xam ne ñu ci ñoom daanaka li daara yi daan def eh, mag ñi di ko def ci ñoom laa bëgg a sotti ci ñoom ci kaw tamit nga leen di teete di leen wan yoon ñu bañ dugg ci loo xam ne day lore wala ñu bañ a géeju ci admi bi nga xam ne yàlla du ko bind te sib ko ñu bañ cee géeju bu baax a baax bañ cee dugg bu baax dugg ci li nga xam ne mooy leeru yàlla ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak top ndigal serigne touba li serigne touba jangale ndax eh, touba danaka bo tek tolo ci ay terem rek lu bari dong koy dong koy dong koy dong koy mana def danaka do reer ba ci tere bi mu njëkk a bind mooy tasew du si xaar ginnaaw lëx yu tassew du la ci def tassew du si xaar bu mu koy bind dafa ne moy sire ci xalé yi kon ko ci tegtalu rek moy don sire ci bo xamne mo ne la meuna a aljana Euh, boo xoolee bunt bi tamit bi ko bi ko bi bindee si bunt bi dafa njëkk a musulu ci seytaane xam ne ne saytaane mooy fëkk ndaw ñi di leen yóbbu ci euh, lëndëm see njëkk a muslu nga xam ne borom da koo kàttanal bunt ba ca tegaat mooy bunt bi nga xam ne leen soññ ci ñu jàng xam-xam ndax moo ëpp solo ci jamono ji ndax boo xamut xamadi xaw laa rey te jamono jii si boppam dafa yàq-yàq goo xam ne lu nekk mën naa ñëw dugal la ci loo xam ne bugg ci woon a dugg nga dugg ba noppi di ko rëcc ndax saytaan dafa bari doole ba tax na Sëriñ tubaa bi mu leen soññee ci xam-xam bi nga xam ne dañ ko war a sàkku ba noppi ginnaaw buñ ko mokkalee ba noppi dañ ko war di jàngale waaw mooy yaayab sibyaanu laa tastaqilu xalil huda wastaqilu bil histi wacc laa wa maa jaan saqaawa waaw boo leen ko mokkale ba noppi leen ko war di ko jàngale ji ak di ko wattu bu baax te ngeen ni maytinu ko jotaay yi nga xam ne duñ fa waxtaane yàlla duñ fa tudd yàlla ba ci suuf lim ci waxtaan tamit ne foo leen toll yi neen toqoo baax ndax boo toqoo ku baax bu yàggee nga baax safaan bi tamit noonu la boo toqee ko bon bu yàggee nga bon waaw képp koo xam ne nag jëf nga ci ndaw si waxtu wi nga xam ne jox nga ko yàlla boo doone mag yàlla noppal sa lépp kon si loolu nañu aw. jërëjëf ci yooyu leeral Serigne Khadim borom am na solo torop ndax mën nga maa dikkal tuut bu jigéen. waaw sama waajur bu jigéen mi ngi tudd Soxna bu Bousso di sëtu Serigne bu Bousso dëkk Guédé waaw di da yaayoo nag bàyyoo ci ndax yaayam moo doon doomu sëñ bu Bousso baayam sëñ Cerno moom sëñ Jaaña moom sëñ Bousso bi mooy baayam. waaw daal laa siñ bu soobee laa siñ Mbàkke bu soobee waaw da cee yaayoo bàyyoo ci am lu ma leen di posé tuuti bu ñuy sa moroomu mbàkke mbàkke yi nga xamante ni si dañ koy def lan nga leen di ñaax yow ndax eh, politique Sëriñ tubaa ko njëkk bañ eh, ndaxte eh, boo demee si histoire Mamour Anta Sali ci waajuru Sëriñ Tuubaa rajo buur la woon don tumputi proti way nim don bur rek tax na ne serigne touba da ko siboon bañon ko ci Toko ko bañe moy bañu ko won pour dara da ko siboon ci lim nga xamne dan ci la daan yëngu lolou xawone a ba taxna bi ga bayam daan atelo euh mamon Sali daan ko daan lo joo daan atelo bi nga xamne mamon wayna deduna serigne touba bi ko ko waxee daf ne rus naa malaayika yi suñ borom yi di ma gis may dem benn buur bu du suñ borom rus naa ko waaw kon nag li ngeen wax maa ngi koy jaale sama baay ndax ay wóorle la kon bu ñu xoolee foofu rek daanaka lu bari dañuy deesuwaat ginnaaw ci wàllum politique te politique bari na mbàkke mbàkke yu mu yàqal yu baree bari te boo nee si yoonu Sëñ Tuubaa nga aw te Sëñ Tuubaa ngay roy lu sëñ ba ñoom lépp yaakaar naa di nga ko war a sori waaw moo tax mu ci yëngu. Mm-hmm. Euh, leen di ñaax mooy nit ki lu muy mu boobu nekk da koy nuur waaw bu ne yoonu sëriñ tubaa laa bëgg te yoonu Serigne Touba laay liggéeyal di ci aw ci wàllum politique Serigne Touba kenn mënu koo nax sëriñ Touba amul kenn ku ko mën a nax loo def lu nekk rek daanaka sa bopp nga ko defal waaye Sëriñ Tuubaa moom ba muy rëdd yoonam wii pare na ca bu yàgg boo boo dee mbubboo Sëriñ Tuubaa nag di ci boolewaat leneen ah benn te bàyyiwoo ko wala tuuboo ko Sëriñ Tuubaa moom dëkkam bi kenn du ci mbubboo mbiram ba noppi di dugg ci wàllum politique ñaare dale fi jële nga jële fi wala mu xal la ba ñëpp gis ko waaw soog lay xisaab fii ba noppi ëllëg boo demee fee kenn du la mën a xisaab ndax sa deret daanaka ku tedd kee ko fi waaw sëñ su ma déggee say wax ci biir que dafa mel ni que yow luy nuroog wàllum àdduna waxoo ci dara yow daal jërëjëfe sëriñ Tuubaa ji rek moom ngay doxee ah, tette ndaw ñi yar leen def ci ñoom diine ak xam-xam ah, loolu nag yàlla na ci yàlla ak sëriñ Tuubaa Mbàkke jàllale ah, jàppale ba lépp fi li nga yéene ci xale rek yàlla ak sëriñ Tuubaa Mbàkke defale ci lu kawe sa njortu émission bi nag nii la doon tëddee saa su nekk nii lañ koy defee ñu ngi lay ñaan nga tàggatoog mbokku téléspectateurs yi lay seetaan di sant ñep di la sant yow mi euh, di la ñaanal yalla li la taxé jëlé sa kër ba indi la fi ba ni ngi fi kité e, bay ag sa kër yalla défal la ci yiw ci bàkkee sa ramadan ak mbolam ñi nga andal ñi euh di gëna soñi nit ñi ak samay mbokki talibé yi leen wax ne euh, ñu gëna ñaax ci liggéey Sëriñ touba ndax moy lu ñëk moy li muñju waaw ndax euh, sëriñ Tuubaa moom dana kenn kenn du ma yaakaar mukk di tàbbi safara mukk ci àdduna kon dama leen di ñaax ñëpp ngeen gën a liggéeyee sëriñ Tuubaa xam ne sëriñ Tuubaa rek moo fi nekk te yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko ku ñun nag dañoo war a def lu ñu sëriñ Tuubaa gërëmee yonent bi gërëm ña ko yàlla gërëm ña te loolu mooy mbir sama mbokki mbàkki mbàkki yi nag ñi nga xam ne ñooy dugg ci wàllum yooyu wala ñooy bëgg àdduna euh, dam leen ñaax ñuy moytandiku politique di ko di jëf yu ñaaw wala ñu maytunu ko di dem ci yoo xam ne yàlla bëgg ko yonent bëgg ko Sëriñ Tuubaa bëgg ko waaw bu ci mënta ñàkk bañ mënta ñàkk bañ fay dem leneen fa mission yóbbu mission bi nag mooy dem di récupérer ñi nga xam ne ñoo fay dem seytaan da leen a këf nga leen nga leen di récupérer di indi si leer waaw bu munta ñàkk bu munta ñàkk fekk na loolu yóbbu la fa nag saytaan li fa yóbbu nag ah di la bàyyi ak sëñ Tuubaa moom mën naa fajal lépp boppam ndax mën na ginnaaw mën kanam waaw dañ ci ñaax naan euh, nañ liggéey sëñ Tuubaa te xam ne sëñ Tuubaa rek moo fi nekk ñun ci lañ nekk ci lañuy sax ba faaw ah jërëjëf ci message boobu nga xamante si moom nga lancé sa moroomu mbàkke mbàkke xam naa bis buñ ci jotee dinañ ko jëfandikoo ak ni mu waree ah sëriñ Xaadim ñu ngi lay remercier bu baax nag surtout waa équipe Info ah parce que émission bi yaatal nga ñu nangul nga ñu ko yombalal nga ñu ko macha allah amuñu ci benn jafe-jafe ah li nga xamante si moom nga soobu fas yéene ko liggéey sa mam ju tedd ja yàlla na la ci defal lu kawe sa njort waa équipe Info ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare bare bare merci beaucoup encore une fois lañ lay wax jaa ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi nga xamante si Yeneshi suivre seen site internet mouride point info ba léegi comme ni leen ko waxee woon rek yéen ngi woon seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou nii leen koy woyale ak yéen saa su nekk xam naa dañ leen di jox dig daje suba incha allah ci beneen invité jaa ngeen jëf mbokk yi ki ko wutu tey fu ñu taamu ku tedd ki yàggal ko ba xayrun nama yi gamaat nan wax doon ca dara bu fi yàggee te amu ku waa réew mi danañ kontaan ku am ci leeri aw turam yow dooto ñàkk dara miim nuun ta tombe qaaf liif gu ajiyan nara almuntaqa di octogon tur wi daalamboo dara te quinze mooy siis kon day doon jihaatu sitta estu westu norshid wallahi yaa yore dara alxamis ci ëllëgay doon sa fukki fan juróom ci bopp xilaafa gi yàlla na nga dara amin bi ahmad al xadim moom fi teg bula ay cat jege fenn bu dara man ci dara nangul ma tey ji ma doon alkaati muridi turu général bi jox naa la